asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu mbokk yi ñu nga leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar gannaaw bu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi leen di ndokkeel ci xew-xew boo xam ne dëgg dëgmal na muy fanweeri yoon ak benn at mu jot ñu def ko Islamic Development Association bu Nema Nazir ci njiitalu Cheikh Baye Mohamed Nazir Ibrahima Niass waaye ci ndigalu xalifa Cheikh Mahi Ibrahima ñaas war a taxawal ay bésu diine lañ koy tuddee. ajjuma xam nga ziar la boo xam ne jagle nañ ko wali yàlla woolu Cheikh Mohamed Nasir samedi ba nekk gàmm goo xam ne dafa am ay coppite yoo xam ne am na ci xam naa du ñàkk daañ ci waxtaan incha allah ñu toog fii nag ci place bu tedd bi ci njiitalu Cheikh Baye Mohamed Nasir moom ngeen di gis nii mu toog ci càmmoñam imam aj Abdoulaye Ismaïla Ba topp ci moom ki nga xam ne mooy naay ba bu njëkk imam Saliou Seck topp ci imam Saliou Seck Cheikh Omar Diassé kenn la ci ndaw yi nga xam ne ndaw yu ama am solo ci fii ci dem Néma ci ndeyu sëriñ bi yaa ngi am suñu mbokk rajo fa jaxate kooku nga xam ne moom mooy làmmeñu xadara Mawlana Cheikh Mouhamed Nasir gannaaw moom man mii ak man gannaaw man xam naa Cheikh Ahmed Tidiane Thiam gannaaw loolu itam rajo Moustapha Thior moom itam kenn la ci ndaw Néma yi nga xam ne dundal nañu xadara bi baax a baax a baax am nañ nag ci wàllu xarala gi Assane Diop ak itam Aliou Thiam ak mbokk yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom ñoom ñooñu ñëpp ñu leen di nuyu waaye mbokk yi seetaan moo xam fii la moo xam biti réew la ñu ngi leen di nuyu leen dara jàmm ci li nga xam ne mënut a ñàkk mu am ndax itam nag ñu ngi dëgmal bés yooyu nga xam ne ñeenti fan la ak juróomi fan ci weeru février bii di ñëw atum ñaar junni ak ñaar fukk ak ñaar nga am nag ñaari télévision yoo xam ne ñoom itam seen i itte tax na ba ñu toog fii bokk na ci Nema Nazir online TV waye bokku na ci tam Sunrise TV nek ay ndaw yo xamne ne jar nañu ñaanal leen yalla serigne bi defe naa dañ jël ndigal ci yow inshallah rabbi dal di dugg ci waxtaan wi alhamdulilah mbokk yi comme niñ ko waxe sank nit ak yalla ku yalla gëreum Cheikh momin nasir mom mo fàkk place bi bo ñëwé ci néma ci jëmono nga gis ko da ngay japp né dëkk lu bo xamne amna am at fekk la mom ci at bari wut 1981 dal lañu wax né ci la ko waaye kenn ngi nii ko xam ne ku ko jege woon la ku dund ko la régal macha allah mu cheikh cheikh imam Saliou Seck nga xam ne moo topp ci ma Hadj Abdoulaye Ismaïla Ba moom de jege woon na Cheikh Mouhamed gëm nañ ne mën naa wax ci li nga xam ne mooy mission wu Cheikh mission wu lépp lépp wax na ko nee naa suuf balaa nga may war danaa la teg ay juma ak it école ba tubaarikàlla kooku la bëgg a jox kàddu gi mu andi ñu rek la nga xam ne moom la jàpp ne moom mooy Cheikh mission am liggéey bi nga xam ne yàlla sason na ko mu war ko moo ko ci ci Cheikh euh, yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew da jiital ci nuyu boobu Ibrahim ibnu Cheikh Mohamad Nazir euh, ñuy waxtaanee loo xam ne nag muy gàmmu gi nga xam ne neema ñu ngi koy def at mu jot muy gàmmu goo xam ne Cheikh Mouhamad Nazir mooy ki nga xam ne moom moo ko sos eh, la ko def nag moo di hadaf bi moo di moom ku nekk xam na ne eh, dundam yépp ci tabax néegu yàlla la ak tabax uskul defe naa ne du wut neema gi rek moo tax mm. ñu yëngatu waaye soo demee ba faaraato am nañ fa jumaa am na fa tim uskul soo demee ba tànja am nañ fa uskul soo demee ba yesew am nañ fa juma ak uskul barab yii mooy barab yi nga xam ne moom la am fii ci Gàmbi barab yu fonkoon la eh, lim ci jubluwoon nag mooy liggéeyal yàlla liggéeyal jaami yàlla yi liggéeyal njaboot ak eh, <coughs> njaboot yàlla gi mm-hmm. loolu nag ku nekk xam na ne wax dëgg yàlla moo doon yëngatam dundam yëpp jihaad la dunaw yëpp jàlloon ndax école moom la daan njëkk a samp su ko sampee daldi jël jumaa teg ci loolu fii ci Gàmbi mooy barab yi nga xam ne tudd naa ko soo demee ci yeneen barab yi ci Sénégal tim barab yi bari na lool xañ na duñ mën a tudd yëpp waaye soo demee ba Dakar am na fa ay am na fa ay uskul am na fa barab yu ñu ko fa may yoo xam ne yéene woon na pour def ko uskul soo demee ba Mauritanie soo demee ba Nigeria Sierra Leone réew yu bëree bëri bëri am na fa euh, barab yoo xam ne ay jàngu lañ ak ay jumaa loolu nag ku ne xam na ne wax dëgg yàlla euh, li koy defar ak li koy doxal moo di hitte hitte ju réy jooju nga xam ne moom la amoon moo tax ñuy wax nit ñi yëpp na leen Cheikh Mahamad Nasir wax dëgg yàlla jihaadkat bu mag la wax dëgg yàlla dundam yëpp moo doon islaam dundam yëpp moo doon dimbalee jaami yàlla yi dundam yëpp moo doon tabax ay juma nit ñi dafa julli tabax ay uskul nit ñi dafa jàng loolu wax dëgg yàlla ñun seede nañ ko te barab bi nga xam ne mooy neema soo de bañ tukki naa moom dem Mauritanie muy ko Fuglu da ko wax Mauritanie yi ne dama bëgg suma barab bi nga xam ne moo nekk Tafariseen muy pàkk boo nga xam ne dañ ko ko fa may mu ne dafa bëgg mu mel ni neema da ko bëgg mu nekk uskul boo xam ne waa Mauritanie yëpp danañ fa jàng ci gàttal daal jihaad kat la koo xam ne dundam yëpp jihaad na ko ci yoonu yàlla waaye dundam yëpp def na ko ci dimbale doomi jullit ñun ñi nga xam ne doomi ay doomam lañ wax deug yalla defal nañu lo xamne sax mun nañu wax ne eh, defalut ko sax amna ci doom yo xamne defal len ko wala defalut ko ñep waaw imam mu ngi ni tok ci man mang ngi ni yene Yusufa jaxati ñu ngi ni ñom Tafa Coori nag ñoom ñii ñëpp cham Thiam ñëppam fi wax yalla yàlla wu doon domam ak ku nekk doomam ñu ñep wax deug yalla daan ñu ba teg ñu ci yoon wi nga xam ne ci lañ nekk tey ñuy jihaat pour uskul yooyu jëm ci kanam jumaa yooyu jëm ci kanam mu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jàppandal lépp lu aju ci loolu bi jaay seeti wu ja ma hurmati allahumma salli ala waaw ah, jërëjëf jërëjëf imam Saliou euh, wax ji fasaana macha allah euh, nag dañuy daal di wëlbati ko suñu mbokk Adiouze Fajaxate xam naa sax ci ci bunta buntab waxtaan bi danañu la laaj lan la lan la lan la jaraloon Cheikh Mohamed Nasir maanaam moom nee na kat la woon waaye gis nga xam naa mu sacrifice ci yu bëree bëri bëri dina am solo nga dugg foofu ba noppi daal di sa saraax dugg nag ci naka la am lante woon ak waa réew mi. maanaam li ñuy wax relationship moom naka la am nante woon ak waa réew mi dina am solo nga wax ci ndax gëm nañu xam nga ci lu war a ajus fa alhamdulilah ginnaaw bu ñu yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul saydi wa mawlaaya alxalifa cheikh ibrahim muhammad nazir bi toog ci suñu wet ak mboolem kàngam yi nga xam ne ñoo toog wër ko suma ci tuddee saydi imam xaaji abdullahi ismail mu mel ni tudd naa ñi teew ñëpp fi suñu mbokk mu baax mit daaneele léegi teg ko ci xam-xam teg ko ci yar muy imaam Salihu Seck daanaka foofu la ñuy doore relation Cheikh Mouhamad Nazir ci biir Gambi mooy relation maam alxaaji Abdallah al kabiir mooy relation Mawlana Cheikhul Islam Xaaji Ibrahim ndax it ci niñ leen koy nettalee ci history waxtu wu nekk xam ngeen ne ba ko Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahim di jële Égypte kóllëre bi mu njëkk a daalanteeg moom mooy na ko yow laa wóolu ci sama daara yu bàyyi waaye rikk Cheikh Mouhamad Nazir maa ngi lay wax ne soo yëkkatees daaray maam Hadji Abdoulaye jooce ca Kawlax ca Medina Baye ba mu àgg ci niveau bu kawe ba mu war a àgg rikk bul fàtte Gàmbi ndax kat na nga xamne sama baye mam hadji abdallah bi ko tubaab yi sonalee gambia dalalon ko le rek googu man mawlana cheikhul islam hadji ibrahim dama ko bëgg fayante gambia te yow mi yow mawlana cheikh mohammed nasir yow la ci yaakaar wa awfu bil hadi in al hadi kana masulan waye kenn ku nek xamna ne cheikh mohammed nasir yàlla nañ ko yàlla fayal def ligéy na ligéy bu set bobu ndax toog nañ fii ci néeg bi ñu toog tey yàlla def na toog nañ fi maag moom keroog bi nga xamee ne irantal tal na ci kaw Koweït muy ci tay mu Saddam Hussein ñu toog waxtaan fii am ku ñëw jaamu bi yàlla bu ñëw wax ko pexe moo xam na nii alal ju bari la ci jamono boobu mu mënoon ko am ñu bari man cee tedde mu defeenu ci lal bi ba mu yàgg mu ne bëret jóg toog ne loolu su ma ci duggee mu jur ay millions jur ay milliards kóllëre ki nga xam ne moom la ma Mawlana Cheikh Lislam Hadji Ibrahim bàyyee te daf ma wax ne sama taalube fépp fu mu nekk ci kaw suuf bu dee ci jaahil yow seex Mouhamad Nasir yow lay poñe ëllëg kon naka lay mën a yore loolu ti séentu alal tax may bàyyi kóllëre bàyyi Baye mm, ci léegi li imaam Saliou sekk wax ci suufu su Mortani si mm. dajaloo nañ naar yi dajaloo nañ ci Mortani ne ko lii dañ koy jaay ay milliards yu bari da nga ci mën a amaat place sancaat ci faneen am fa daara am fa kër am fa juma ndax palace bi ambassadeur yi ñoo fi dëkkee palace bu seer la ci Mauritanie mhm. mu ne leen ca sawaay dara ndax loolu dafa jomb Baye Niass kon Cheikh Mouhamad Nazir kim njëkk a amal relation mooy Mawlana Cheikhul Islam Haji Ibrahim mhm. ndax góor góorlu na ba kóllëre képp koo xam ne joxoon na ko mhm. mu sàmm ko moo tax bi ñëwee Gàmbi lim def def na sawaay cin ci ñetti was lay taxaw mm-hmm. moo tax nga gis mu taxawal majlisu suura mooy mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir jumaa ci ak kër gi mm-hmm. di diisoog lépp lu aji ci jumaa ci taxawal suñu yaay yi yàlla na yàlla yërëm leen ñu ci bari dem nañ commencé ku ci yaa ami sekk dem demet ku lim juum mu taxawal na comité bi nga xam ne tey mooy Islamic Development Committee of Nehma Nazir nga xam ne ay kàngam yu mag ñi ngi fi woon liggéey liggéey bu rëy ci biir Nehma Nazir tey ñooñu dem nañ waaye muy borom kóllëre koo xam ni noonu la ko Gambia yitteel fépp fu mas a taxaw ci biir àdduna suy wax ci neex Nehma Nasir lay dale loolu nag li muy wan mooy fonk kum fonkoon Gambia bépp nguur ku fi mas a toog jëflante na ak yow cëflante boo xam ne ni daraja taxut alal taxut li tax rek mooy kóllëre ki ko bàyyi ñës tënk commencé ko ci saadaawuta kay raba jawara yal na yàlla yokku leeram kenn ku nekk xam na taxawaay bi ci Cheikh Mouhamad Nasir amoon ak lim ko taxawoon ci lu bari daan xewee ci biir néeg bi ñu toog tey alhamdulilah nga xam ne xalifaam bu baax bi moo ko liggéey ci façon liggéey bii ñu nekk nii tey mu méngoo ak jamono waaye ci jamonoy sëriñ bi néeg ñax la woon ndax moom gis nga ko bi mu ñëwee lim sañ ci lu mu njëkk a def daara mu ne daara pare ci sawaayu dara ci la ministre yi di génne ci la président yi génne cila la imaam yi génne ci la borom xam-xam yi génne kon Cheikh Mouhamed Nasir bala ngay wax ne tabax na daara bala ngay wax ne tabax na jumaa da ngay njëkk wax ne tabax na nit. ndax nga fekk nit. nga def ko dof dafa yomb mm-hmm. mais li gën a jafe mooy nga fekk dof nga fexe ba muy nit Cheikh Mouhamad Nazir yàlla nañ ko yàlla fayal mm-hmm. ci maqaama moomu la tooke woon mm-hmm. su ma neexoon ma la ci jamonoy président Daouda Diawara lépp lu mës a lëndëm ci réew mi ci néeg bii la ko yàllay wane kan la daan woo ci jamono boobu Omar Amadou Omar jàlloo mhm. ñu gën koo xam ci Oje Diallo. Mhm. moom la daan woo wala Abdou Saara Jang mhm. ñooñu la daan woo na leen bëgg naa ngeen gis boroom réew mi nañ def nàngam ak nangam ak nangam ci réew mi dal am ci néeg bii la toogoon benn bisu dimaas ñu liggéey ci jumaa ji ba wàcc am ku ñëw ne ko sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal ma mu ne ko ci sawaay ca ca dara lépp lu ñu leen mas ñaanal yàlla nungu na ko lépp lu ngeen ñaanal seen bopp yàlla nungu na ko mm-hmm. réew mi moo laaj sangat ñun ñi toogoon ñëpp jàpp na ñun kiñ toogal daf fii béel du fi mas a jóg mm-hmm. naam daf fii béel du fi mas a jóg waaye nag da jamono boobu ñëpp ko manoon a gis jamono bii ñu toll nag ñu néew ñoo koy gis ci saayir mm-hmm. maanaa bi nag ñëpp koy gis ba tax kenn ku nekk ci ñun amul kenn ku taxawoon na ko lan mooy sangatu réew mi dégg ma tegal la ci ne ki arsi bi ñu fi nekkee kenn ñemewut a génn ñëpp ne tekk mennu Maulana Cheikh Mouhamed Nasir Ibrahim moo xuus ci biir soldaar yi dem jàkkaarloog président docteur Alhaji Yaya Jammeh ne ko dama ñëw ndax sama mission moo laaj fépp fu nit nekk rawatina jullit yi rawatina taalibe bàyyi dama war a gis buur kon li ma lay njëkk a dénk mooy soo bëggee yàlla dimbali la na nga yërëm mbindee fi yàlla yi loolu la ko njëkk a sant kan moo nekkoon Speaker House jamono boobu mooy Mamadou Babacar Ndiaye def liggéey bu reuy ci Gambia duñ ko fàtte alhaji Badou Faye alhaji Dadi Diak alxaaji Dadi job dem demet demam Demba sek ñom ñep suma len limé damay joom te danaa fàtte ku jégué xam gëmm ci sama xel bama ma tudd koo xam ne kii laa waroon a tudd ma tënk ko waye lu njëkk bind alxaaji babakar ndjay leetar bobu daf ko daan jël diko fon waxtu ne mom ndjay Bibi waw ndax daf ko bind leetar ne ko yow sama soppi ci yàlla ku ma yàgg àndal di liggéey ci yàlla maa ngi lay xamal ne nguur ku dul nguurug yàlla dana jeex te maa ngi lay xamal ne bu leen mas wuute nguur te na ngeen nungu jëfi yàlla <laughs> li ngeen waroon a liggéey ci réew mi liggéey ngeen ko jot na yàlla indiwaat na beneen jaamam bu pare mu liggéey ci réew mi bu kenn kontar na ñëpp ànd moom ndax réew mi ñuy teel te na xam ne sa liggéey yàlla gis na ko yàlla gërëm na ko ma Mamadou Babacar Ndiaye ñu gënoon koo xam ci njaay bii bi ba bi muy génn àdduna képp kum gis lim lay wax mooy gis naa ko am kóllëre ba tey waaye ku mel ne Maulana Cheikh Mouhamed Nasir Ibrahim ci am kóllëre musuma koo teg bët loolu xew na ay yoon yu yoon yu yoon yu baree baree bari dafa fekk ne comme danga ma laaj ci kóllëre ak Cheikh Mouhamed Nasir noonu la daan jóge taal matoom ci seeti jaami yàlla yi mm-hmm. Mm-hmm. xaalis lu ëpp junni bu ko paasee xamatu ci dara taxu ko woon a jóg amu ci soxla. ku tëdd woon àdduna la. ku tëdd woon àdduna la soxlawul woon alali àdduna dafa doy la woon baat ba ko Baye Niass Cheikh Mouhamad Nasir xamal koy àndal xamal koy ànd ak yow waaye man Maulana Cheikh El Hadj Ibrahim maa garanté yow Cheikh Mouhamad Nasir lépp lu ne toq ci sa xol rek nga bëgg ko rek dana teew ci sa kanam. incha suñ mbokk Mouhamed Malick Dianga yal na yàlla yokk leeram. dafa am bis ndekki sax sëriñ bi ñëw jël si ma sama kër ànd ak xaaji Abdoulaye Ismaïla bi suba teel yàlla def na man mi ngi fekk maa ngi téye sama café nii di ŋaañ mu ne ma jógal ŋaañ xaju fi <laughs> ñu dem di doppatoo benn soxla jurul ñuy tudd soxla ba mm. dégg nga waaye la ma ëppal solo ci wax bi mooy bañ toppatoo la ñuy toppatoo ba ñëw léeg-léeg sax ci yoon yu mu tooñu ndax moom noonu la ko yàlla bindee woon dafa mm. woyofaloon boppam waaw su ma ko ne ah, sëriñ bi dëgg yàlla fii fi mu ne xiif nañ <laughs> man waaye yow naka ngeen di xiife yow ñu fekk la ngay ŋaañ di mos <laughs> ñun ŋaañu ñu mosuñu <laughs> yow nga naan xiif nañ xiif amut nañ continuer allahu waaye li ma ci àndal bañ ne cëpp fii fekk nit ñaa ngi fi fees dell loolu nee ma la waaw Mouhamed Malick jànga Diop tab ko ne ko sëriñ bi mbaa soxla yi yàlla kii na ko mu ne ko bu ma laaj loolu man ki ma garanti dama ko wóolu man bàyyi moo ma garanti ne ma bëggal may def loolu nag tu fi mas a jóg xalaa kulli am na benn jaamu yàlla bu ko yàlla masa woon fii ginnaaw bi ñu ne Cheikh Mouhamad Nasir génn na àdduna ñu ne gàmmu neex ma jublu na ginnaaw suba la Cheikh Mouhamad Nasir taxaw ci digg baye bi jël tànkam teg ko ci benn weñ buñ war a samp mm-hmm. am ku ko ne sëriñ bi ñëpp jooy nañ ba sonn na génn nga àdduna lam tënk wax bi rek mooy man duma fi mas a jóg daa iman maa ngi jàkkaarloo gi allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah loolu sant yàlla la kon fi mu ne nii bu ñu waxee ne moom war nañu ko ziyaare yéy na bu ñu waxee ne moom war nañoo fàkkal gàmmu mën nañoo wax ne dimbale nu ba nga xam ne xëy na toll nañ foo xam ne macha allah alhamdulilah li nga xam ne bëgg naa koo laaj moo di danañ ñëwaat ci yow incha allah ndax dafa am lu ñu tënk ci waxtu li nga xam ne bëgg naa koo laaj mooy balaa may ñëw ci imaam dinaa ñëw ci amit yan mi parce que tam xal la nga yoon wi pour ñu xam ne moom ku ñu war a la te amit yan mii nag mbokk yi mooy ki nga xam ne moom moo yor wàllu ziyaare moom bu paree dinaa jox ndaw ñi ndax ñoom itam dañoo am rôle bu ci biir neema muy euh, Omar euh, Diassé ak ak Moussa Facho ci amit yan naka naka ngeen di arranger gàmmu gi parce que def euh, màgg kii ziyaare bi ndax bu ñu waxee ci loolu ba pare incha allah bu ñëwee ci kanam dana wax lan mooy njëriñu ziyaare wala yàlla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 délégation bi fi toog yëpp euh, ajum Ababacar euh, liñ dégg képp koo xam ne tey ci kàddu jaxate nga xam ne tey ci mbiri li xam ne tey suñ sëriñ bu baax bii nga xam ne bàyyi ko fi liggéey na ko bàyyi fi doomam ju ji mu liggéey moom it lu ëpp loolu tey nag kooku bu amee bés war a def di def ñu war ko defal siyaare def ko war koo defal gàmmo siyaare bi képp koo xam ne tey taalibe nga gis nga la nga xam ne tey siyaare bi nga xam ne tey ñu koy defal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ca Medina gis xalaas dafa daje te ay taalibe rek ñoo ko fa def waaye nag waaye nag ki nga xam ne mooy suñ sëriñ di Cheikh Ahmed Nazir liggéey liggéey boo xam ne tey ñu toog bay ko defal siyaare di ko defal gàmmoo mu liggéey liggéey bi mu liggéey képp koo xam ne taalibe nga joxuñ la benn ngant siyaare bi nañ ko furlaal fulaal bésu ajuma ci la siyaare bi samedi mooy gàmmu gi waaye nag nañ fulaal siyaare bi ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti ñun nag ñoo ko taxawee waaye tey képp koo xam ne tey foo mën a nekk mayuñ la ngànt taabal bi nga xam ne ñu koy def ci ron taba gii nga xam ne tey dañuy takk suñu rajo ku nekk yaa ngi dégg bisub euh, ñëw leen ci siyaare bi képp ku fi ñëw nag wallaahi lépp loo fa joxe bàyyi nga ko jox sama nasin nga ko jox seex bàyyi nga ko jox kon nag lépp lu ngeen man rek ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw ci bés bi taaral ko ndax taaral ko mooy samedi dima dimanche samedi ak ajjuma yëpp ci biir dañ koy dañ koy laaj. siyaare bi naka la demee ndax yow kenn la wala da nga. siyaare bi euh, Alaaji Babou Touré mm. dem na ci Alaaji Babou Touré di man mi di Ahmed Tidiane Thiam di Moustapha Lo di Alioune caam di sose caam di Amadou Lo mm. ñun ñoo taxawee taabal ji mm-hmm. xan ma jot ñoo ko di taxawee ñi ngi ñaan nag lépp lu ci waay man. ak rafetal ko ak def ci sa doole ak sa kàttan ak sa man ñu ngi lay ñaan yàlla nga def ko Cheikh bàyyi ñu ngi lay ñu koy ñaan yàlla guddal fanam lool yan la tey lépp loo xam ne bëgg na ko ci bés yii yan na yan na ko yàlla def yaara bi ci barke Baye ngi gërëm ñëpp ñu ngi oo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaleykum salaam wa barakaatu kooku mooy Cheikh Ahmed Tidiane Thiam defe naa ne dinañu ñëw ci ndaw ñi xam nga lu tax ndax nag ndaw yàllaa ko mooñaa léegi islam hmm. te itam neema gi kat ndaw yi dañ ci am cër bu rëy rëy rëy dañuy jox tabacoor mu wax ci wolof lan moo nekkoon diggante ndaw yi ak Cheikh Mohamed Nasir fii ci réew mi dan bu ko defee bu pare ki nga xam ne moom mooy Omar Diasse ñëw nag ci angale ndax itam programme la boo xam ne fi mu ne nii àdduna si nga koy seetaan hmm. di nga ci am foo xam ne nit ñi dégg nañ wolof ak ñoo xam ne dégguñu wolof incha allah onze sax daañu ko fi wax tey pour ñu xam ne pays bi pays la boo xam ne yàlla yaatal na ko incha allah Cheikh Moustapha ñu jox la kàddu gi wax lan mooy cëru ndaw ñi ci biir ne ma fii. jërëjëf Cheikh Babacar Thiam asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di nuyu di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital si nuyoo bi suñ wasila Cheikh Baye Mouhamed Nazir ak suñ imam Cheikh Alaaji Abdallah Ismail Ba. ak suñ kilifa yu teew yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog yàgg ñu di ñu teete ah, dañuy waxaat beneen yoon alhamdulilahi rabbil alamin ñoom seen ganaaw moo yaatu moo tax ñu ban la Cheikh Mouhamed Nazir déddoo àdduna ñu oo ñu seen biir depuis mun nañoo wax depuis 1995 ban la sëriñ bi génnee àdduna bi léegi ñu ngi topp suñ ganaaw kilifa yu baax yi ni ñu xalal ñu yoon bi ñu xam ne ñoom tamit bés dinañ dem toog du ñu wax ne def leen lii def leen lii def leen lii te léegi si jamono boobu lañ toll nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom yàlla gën leen fee yàggal waa ndaw ñi nag si si si eh, Nema Nazir fii nii ndaw yi am nañ fi solo lool wax dëgg neex yàlla parce soo ko xoolee jumaa daaneel nañ ko fi samp ko daaneelaat ko samp ko te loolu yëpp ndaw yi ñoom ñoo si doon nekk Cheikh Mohamed Nazir moom mi nga xam ne moom moo fàq dëkk bi si 1981 fii la daan toog néeg bu ñu toog nii ba léegi suñ leen waxee ne néegi suuf la ñu bëri koo ko waxut du ko xam fii la daan génn toog bunti néeg baa ngi nii changé wuñ bunti néeg bi bunti fu mu nekkoon la nekkoon ba léegi te loolu ba léegi ñun mun nañ koo fàttaliku ñu ngi koy ñaanal yàlla leeraayam boobu noonu yàlla na continuer di law si biir neex Nazir bii ñu ngi kontaan trop si gàmmu Nihma bi nga xam ne fekkee nañ ko di fanweeri at ak benn loolu sant yàlla la te dañ si gis yokkute bu rëy rëy rëy parce que ndaw ñi fépp fu ñu oote fépp fu Seex Baay oote fépp fu imam oote fépp fu comité bi oote ñëpp dinañ génn si def seen doole def seen xam def seen am-am lolu sante yalla la waye lolu non Cheikh mohammed Nazir moñu ko jangal, parce que moñu jangal fi be jangal ñu fi naka la ñuy ajee màkk ñun képp ko xam yalla def na demuloo sa alhamdullilah rabbil alamin ñun defal nañu ko fi, parce que soko ko bayal bi amon na teen bu fi nek amon na garab amon na lip lipulaf daf ko jël mu mandar ko makatal mukarrama bi nga xam fofu lañuy wax ne moy neeg yalla ñu ngi koy santat benen yoon di ko di wax ne lepp lu fi ba yalla ci yalla def barké di ñëwaat ci gamu gi di wax ne protocole yi gamu bi nañ fi fexe ñu respect ko ay mbooloo la ñuy oo ñun tam yaatal ne ñëpp képp ku ñëw di nga dal di nga lekk di nga naan waaye si jamono feebar lañ nekk tamit képp koo xam ne yaa ngi ñëw covid protocole si na ko fexe nga respecté ko di wax tamit leneen tam si taalibe yi te xam ne suñ sëriñ si di jógee Medina di ñëw ñun ñoo leen war di dem di fekki waaye wala ñu di ñëw di ñu fekki waaye su ñu ñëwee fekk si tamit buñ di buux buuxloo di bugg a nuyoo sëriñ di bugg a dal si kawam di ko bugg a gaañ loolu du yar loolu du teggin su ñëwee nañ toog di ko xool rek loolu rek doy nañu sëg moo moo gën ñu ñuy buux buuxlu bugga ko ku nekk di ko bëgg a jox loxo te gis ngeen ñoom sëriñ yi naka lañ mel seen yaram si wala seen kattan meetul loolu doole gaay boobu noonu ñu ngi leen di sant beneen yoon di leen wax ne gàmmo neema bi ondi foot la ziyaare bi ak ondi fiif di gàmmo gi di samedi ñu ngi woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulah barakatuh macha uh, dear uh, viewers uh, as I was saying some times back the TVs are covering this event far beyond the Gambian borders. So I think it might be important at this point in time to give the microphone to one of the youth leaders in this country, in this place, I will say, Mustafa uh,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 Praise be to Allah, the most merciful and the most gracious, under the eminent Khalifa of Sheikh by Muhammad Nazir, uh, Maulana Sheikh Al Islam Al Haji Ibrahim Anyas. Uh, we seize this opportunity to um, invite all of you on this 31st edition of the annual Gamu and Ziyara of Nema Nazir. As my fathers rightly said here, Sheikh Muhammad Nazir was a very productive leader who definitely prepare youth in the, uh, the Gambia and beyond borders. You know, as his father used to, used to say, runi فتيان sirkin قد أهلزوا إلى الله قدزلا لا نموت ولا So he was not only particular in preparing the elders, as you've seen uh, my father's rightly sit here. This can be a clear testament to what we're talking about. But he was very particular in building the youth he built youth who are very productive in this country because his father used to say habani wa muradi qabla ilmi wa nasatihi فمني نوال كل وكل مانه فويت المخام رجال بحبه دنا فتدلى برحم خبائه so on that basis he also you know through everywhere across the world to make sure that he prepared the generations that will be even working to the best interest of Islam and in building nation even in his absence. And therefore he succeed in doing so. If you see these very uh, good leaders that are sitting here today, you know, 20 years back, 30 years back, if you've seen them working together with this great man, he make an eminent giant strike in this country to prepare youth, moreover the youths of Nema Nazir. So therefore, we are calling all my brothers and sisters under the leadership of the Minister of Youth to come and grace this very important occasion. This is the 31st edition. It will held here in Nemonasiru Kombo Northwest Coast region. On the 4th is going to be the share of our their eminent Sheikh Muhammad Nazir Ibrahim Anyas and followed by the Maulid by the eminent Khalifa uh, Sheikh Muhammadul Maki Ibrahim Anyas under the leadership of the Khalifa Sheikh Muhammadul Mahi Ibrahimanyas in this uh, very destination. So therefore, we call in the youth, both national and international, because his father used to say, "You hadruni سقين كأهلس إلى الله la لا نموت ولا إحيا. And therefore, he also mentioned he also mentioned that I've thrown my you know things everywhere in this world just to prepare the new generation. So we are the new generation we are very productive and this is not only about celebrating the birth of the prophet but it's a very important gathering that teach about the lives of the prophets that teach how youth should love their country because his father used to say if the youth should develop the youth must if a country should develop the you know prominent youths must be in the front line and this is ever being the stand of Maulana Sheikh Muhammad Nazir Ibrahim Anyas so therefore we call you once again under the leadership of the Minister of Youth to gather in on the 5th, on the 4th and on the 5th to grace this very great uh, occasion. On that note, we just trying to hand over the microphone back to our dear father, you know, who also been a very prominent guy in this country in calling for peace and uh, development. So we thank you so much, Father, for this great. That's great. That's very great. Uh, thank you very much uh, Mr uh, Omar Diassé mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne Cheikh Omar wax na ko léegi nag ñu jox kàddu gi imam balaa ñu ñëwaat ci defe naa xam naa du ñàkk dinañ wax sax na képp koo xam ne yaa ngi bitim réew bëgg a def dara ci gàmmu gi Euh, fan ngay jaar loolu itam am na solo xëy na mën nañ ko wàcc ko defee ñu jox nit ñi adresse boo xam bu mm-hmm. bëgg def dara ci gàmm gi mm-hmm. mën nga mën nga joxe mën nga xam naa ne mën na si gi daal moom la te itam wax dëgg yàlla dinañu seet naka la def pour loolu ñu am ko xëy na buñ ko amee ba pare ñu jox leen ko yéen ngeen def ngeen def ko mu nekk écritel ci suuf dina dina jàll incha allah euh, alimam alimam euh, yus ala yus fa daf ñu yóbbu ci Cheikh Mohamed Nasir waaye imam Saliou Seck daf ñu yóbbu Cheikh Mohamed Nasir mu mel ni moom dafa jëmmaloon lu bari Nasir jëmmal nañ ñaanu bàyyi ga bàyyi ñaan kat alxuraan nekk karaamaam Cheikh Mohamed Nasir jëmmal na ne ñaan googu yàlla def na ko ndax yàlla dimbale na ko ba fépp fuñ ko tuddee ñu xalaat alxuraan fuñ ñu tuddee alxuraan ñu xalaat ko moom waaye yemul ca loola yàlla daf ko jëmmal ci moom ba mu roogaat ci njabootam macha allah waaye lu ama am solo ayus Yusuf wax na ko mooy Cheikh Mohamed Nasir dafa jëmmal kóllëre gi nga xam ne ba amoon na diggante Cheikh ibrahim radi taala ma alaaji Ablaay ak ak Gambia gi xam naa ne foofu dina am solo nga xuus fa aslëf waaye li nga xam ne am na solo moo di Cheikh Imam asan moom moo waxoon ndeysaan Babacar ma ne ko naa mu ne ma dañoo toll ci jamono wax jamono wax nag ñi xam bu ñu waxul ñi xamul ñooy wax te am na solo jamono bë bëri na képp koo xam ne yaa ngi wax ci gàmmu wax ci safaan xamuloo ko ku mel ni yow bu ñu toogee ak mom dana am solo ñu wax la nga laay biir mbokk yooyu ci lan mooy dalilu gàmmu waaye lan mooy dalilu siyaare koo xam ni góor ak yàlla la salaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Babacar aouzu billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتأتف بنزلة تأتي لنا بزفري بهمة صاحب الوقت والفائدة والطريقة والحقيقة مولانا الحاج إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إيه، مبكي نيو ñu نيو تي di الإسلام muy nuyoo gi boole jàmm ak yërmande ak barke ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla defal def ko ci jataay bi def ko ci réew mi def ko ci àddina bi def ko ci mbooleem nit lislaam yi e, ñu ngi nuyu sëriñ bi Cheikh Baye Mouhamed Nazir Ibrahim di xalifatu Cheikh Mouhamed Nazir Ibrahim Eh, di ko wàccee wàcci waayam di nuyu ñun ñi nga xam ne ñoo fi eh, daje ñëpp tey te ñun ñëpp xamante nañ ndax ñun ñëpp li ñu boole tey mooy Cheikh Mouhamad Nazir li ñu boole tey mooy diine ji li ñu boole tey mooy liggéeyal sa réew loolu moom moo fi indi Cheikh Mouhamad Nazir Ibrahim ci lan ci projet boo xam ne projet Cheikh Cheikh Ibrahim ñas la mm. eh, ndax Cheikh Mouhamad Nazir kenn uutiwul ne soldaar la ci soldaaru baay yi waaye wéeruwaayal la tam ci wéeruwaayu baayam muy Cheikh Ibrahim ndax def ko óolu woon jox ko bopp mm-hmm. eh, kóolute googu moo indi mu nekk directeur bu mboolem mahadul islam yu alaaji Abdoulaye ñas ci mbooleem àddina bi yëpp du Sénégal Sénégal Gambie eh, Guinée Conakry Guinée Bissau eh, Sierra Leone yëpp ba gaana ba dem Nigeria demet Eh, yooyu yëpp mu nekk directeur bu nga xam ne baay moo ko fa teg lan la ko fa tegee mooy ne man sa baay ibrahim Ibrahima Niass dama bugg a fay dama bugg a njukkal sama baay alaaji Abdoulaye ñas ci taxawaayam bu mu taxawoon ci àddina bi ndax moo taxaw ba taxaw ba jihaat te lim def eh, lu rëy la mu ne mooy chef alaaji Abdoulaye mooy góor goo xam ne matal na mbooleem ponk lislaam yi matal na tam mbooleem li nga xam ne mooy sarte ñu teg doomu aadama yi ndax jihaat boole ci bokk ci alaaji Abdoulaye def na loolu mu ne ba mu ko defee na baayam alaaji alaaji Ibrahima Niass mu ne def ko bugg a fay njukkal ci fan ci commencement premièrement mu ne ci Gàmbi mu ne ko bàyyi lu tax mu ne Gàmbi dañ ma bëgg ma bëgg leen kon doy na puukare Gàmbi rek Baye Niass mu ne bëgg nañ ko waaw loolu puukare bu rëy la ku ne mu ne ngeeju pour bàyyi bàyyi na bëgg na la waaw loolu nag Gàmbi am nañ ko mu ne yow nag laa óolu ci loolu pour ku ma koy doxal mu ne ko yow laa ci óolu mu ne ndax yow Masa nga nyep, masa nga bi nek ci suuf ndax yaa di jangal maase nga bi nga nek ndax jangale kan nga maase generation bi nga xamne ne mom mom mo la fete ko ñom ñom ñola mag ndax lan ndax fo waxe rek ci sama kaddu nga waxe ku kep kuy waxe ci kaddu bay nak man nga andak ak ñëpp mu ne looloo tax ma olu la ci lolu mot mot motax mom mom motax ndigal yu bari tek nako ci ndodam lépp loo xam ne xememoon na ko moom Cheikh Ibrahim te bugg koo def te xam na ne loolu am lu ko fi fekk gàcc na ko ci Cheikh na Nazir mu ne bés buñ ma fi gisut lii teg naa la ko waaw dem na ba ci gàmmu yi dem na ba ci conférence yi jëm na ba ci samp école yi jëm na ba ci samp juma yi dem na ba ci samp kër yi jël jël defar doomu dama comme li yusufa jaxate wax fi defar doomu dama mo na jafe mu ne bàyyi moo ko wax ne naziru boy sam ay gat bey ak xar ben et ngay yore bo ne acca wala nga ne uri rek nga yëkëti et bi yëpp ay jaar seen yoon jub koc def li nga bëgg mu ne dama ku ne ak etam mu ne kon xam nga édi dinañ bari mu ne na da koy nax da ngay naxante moom sooy wax mm-hmm. kii danga boo ko bëggalee lu baax la da nga koy neexal sax soo ko koo jox mm-hmm. kii forcé la laaj kii dóorante la laaj mu ne sawaay dara moo tax may mbëkkante mm-hmm. waaw moo tax moom mu ne mbir jataay lu mu laaj rek moom mën na koo def Cheikh Omar Nazir rek mooy sëriñ boo xam moom moom moo doon def bay def loolu mu ne jataay bu ne lu mu laaj man naa ko bu laajee maslaha ma maslaha bu laajee xam-xam ma joxe ko bu laajee jàng alxuraan ma def ko bu laajee joxe xaalis ma def ko sa waay bu laajee mbëkkante ma def ko waaw moo taxoon moom kenn doo ko mën a raw waaw fu ne rek waaw kooku kooku nag mu nekk symbole boo xam ne bàyyee ko teg ndax lu mu ne lu mu ne lu taxoon bàyyi ne ko yow laa teg ci kanam pour jeunesse yi maanaam wax xale yi ah mu ne mu ne mu ne mooy ne benn da nga am fit ñaar am nga xam-xam mhm. ñett am nga am nga am nga itte mhm. waaw cawarte mhm. li ci tege mooy bëgg nga ma te man man wóor na ma ne bëgg nga ma mu ne bés fii la ko wax ci xanamu yaayam boobu yaayam feebaree fii mu ne Nazir mu ne mu ne bàyyi ma ko ne Naziru maa ngi lay garantil ne maa la jur loolu loolu loolu dafa foor de mu ne maa ngi lay garantil ne maay sa baay waaye maa ngi lay garantil ne yow sama doom nga waaw mu ne kon lépp lu ma la teg rek ci loolu la sama baay doon teg waaw ndax sama baay daan na ma wax sax bul jaxasoog bul jaxasoog xale yi lu bari boo jafee tuuti rek delluwaatal fi nga nekk toujours boo defee li ngay def rek delluwaatal naa ne ko Naziru bul ma sori mu ne Naziru yow yaay sama rajo yow yaay sama kaset baay da doon toog ba guddi nit ñi reer rek baay oo ko ca bunt ji bunt baay naziru mooy koo xam ne baay bu ko doon oo def ko ne naziru bés bu ma la oowatee may may naa la ndigal ngay jaar ci buntu jigéen ñi mooy bunt bi saralee dem ci biir biir biir kër gi mu ne su ma la oowatee dama la yàkkamti del jaar foofu nga ñëw xam nga fële boo fa jaaree bukk neeg yaa ngi fa dañ lay te taraaw waaye bale da ngay ñëw rek ne kaccit baay baay mayoon na ko ndigal boobu ne sumala ma jaaral ci buntu jigéen ñi waaw lu tax mu ko del jang alquran may deg yaay sama kaset yaay sama Abdul Bas, yaay sama Husari yaay sama Mustafa, Ismail yaay sama Tantawi ñom ñep lolu lolu nag mu mu mu mu mu jël lolu mu ne gannaaw sama baye moma wax lo dana wax sama baye moma liggey lo dana liggey motax mu ne dana samp dara yi dana samp école yi dana samp goor yi dana defar dooma adama yi bala may suuf di war dana ko tek lo xamne dana bindi balaa mu may war nde xam naa ne bés dana ñëw suuf war ma waaye danaa ko dinaa ko wan ne teg naa ci kawam loo xam ne dootu ko mën a teggi ba abadan jumaa ji école yeeg li mu sa fii ba esew tànje faaraato fu ne Sénégal ba ak dëkk yi àddina bi dépp mu ne loolu mbir la moo xam ne du lu tuuti moo tax moo taxoon mu ne nit ñi boo leen di oo na am lu ñu gis bés bu nee nga oote mm. mu ne nit ñi dañuy ñëw di gis every every year at mu jot nañ gis wecceeku mu ne waaye bu ñëwee gisuñ ñu ñëwaat gisuñ danañ waa kii boppam lay ooteel ku ne xam na ne Cheikh Nazir mosta ooteel boppam mm-hmm. bu ñëwee bay gàmm sax dafa gàmmoo ngir lan ngir doomu aadama yi mën a daje mm-hmm. joxante xalaat ndax ne woon na moom gàmm du gàmmo ni nit ñi gisee gàmmo dajalee rey nag yi xaribe yi lekk cere ji lekk maalo bi tasaaroo mu ne loolu du gàmm ci man <coughs> gàmm ci man mooy ku ñëw rek na nga ñibbee xelaat bu ees ku ñëw rek na nga yokku mm-hmm. kullu seyin isa ma tamma nuqsaanu mu ne araba wax loolu lu matut wàññeeku na mm-hmm. mu ne te man lu mat rek laa bëgg luy yokku rek laa bëgg doomu aadama mu ne baay baay moo ko ne naziru doomu aadama fu mu toll rek yokkute la bëgg su amee benn bëgg na ñaar su amee ñaar bëgg na ñett su amee ñett bëgg na ñeent mu ne ndax kooku kon war naa noppalu moo tax mu ne leen effacé leen baatu noflaay ci seen dictionnaire yi ci seen bés pour ne dema sonn mu ne sama doom yi bu kenn yaakaar na ci coono am na mu ne yéen waru waru leen a sonn yéen da ngeen a war a def ba ñëpp xam ne def ngeen ngeen liggéey ba ñëpp xam ne liggéey ngeen ngeen xàll ba ñëpp xam ne xàll ngeen mu ne ngeen ndax loolu mooy seen tool yi bàyyi waaw mu ne Cheikh Nazir mu ne bàyyi daan leen wax naan mu ne mu ne yéen samay doom làmmeñ boo xam ne lam làmmeñ boo xam ne yàlla xotti na ko te wax lu baax ak di ko ñaan lu lañuy uur ci làmmiñ boobu làmmeñ boobu na rusa wax lu bon waaw te ñoom ñëpp ci loolu lañuy yaru moo taxoon mu ne su may su may gàmmoo lépp lu Baay Ñas njoboote dana fi teew mu ne moo tax gàmmoo gu ma waaw dañ ko doon forcé sëriñ bi ren nañ gàmmoo mu ne déedéet sëriñ bi nañ gàmmo ren nag déedéet alaaji bu sekk moo ko fi njëkk a soññe ne nañ gàmmo jënd ndak ak defar baas ak yépp mu ne xee gàmmo jotagul mu ne sama gàmmo sama xalifa bi nga xam ne mooy sama mag dafay teew waaw ñi ma mag danañ teew man ñi ma mag waaw booba la mu manit ñi ma mag danañ ñëw mu ne bàjjan yeeg tant yeeg lépp lu bàyyi njoboote du fii rek Mauritanie Nigeria la joxe exemple mu ne ñoo ñëpp dañ war a teew ñu xam ne Baye Niass Alaaji Abdoulaye am nañ ñu leen toogal ci réew mi waaw mu ne ndax looloo taxoon mu ne ñu nu bi abnaa i baladikum mu ne réew boo fa demee dimbandekool waa réew ma moo tax ba mu fi ñëwee buntu doomi réew mi nga xam ne ay dafa foog ne Nazirou bu ñëwee dafay joxe ay projet gu boppam ay dama bëgg a tabax néeg wala dama bëgg a defar nangam nangam mu ne waaye ba ñëwee lam ko jox yépp ne loolu la bëgg ñu dimbale ko ci dara bokk ci pour moom nafsum pour pour bakkanam waaw waaw mu ne école la ko wax jumaa la ko wax ah mu ne for doomi réew mi dajaloo liggéey mu leen di jox xaalis ñuy ñuy ñuy mën a liggéey. foofu nag bu ñu fa na ci ziar. Mhm. ku moom mi ngi ziar dana am solo nga wax foofa waaw xam nga mooy njëriñu ziar xam nga moom sax daan na ko wax mhm. mu ne ziyaare yi bari na fasante ko na mhm. mu ne waaye ñi ko eyloo bari wut mu ne bàyyi sax bañ ko ne ziyaare mhm. bàyyi def def ko randal ñu waxaat ko mu randal ko ba ñoom ñu ne ñun kon ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñooy say nit ñoo daje pon ngir ñëw ñëw jox la suñuy kaddu ak suñuy xalaat ñu ziyaare la waaw moo tax ziyaare ziyaare nañ ko ba ziyaare ko sax mu ngi fàddu ñu jàpp ñu jàpp ziyaare bi bàyyi fàddu ñu ñëw def ko ci gannaawam mm-hmm. waaw mm-hmm. kon nag kooku royteef la mm-hmm. royteef moom moom moom la ñu war a ziyaare koo xam ne royteef la koo xam ne def na fi dara bana fi dara te nit ñi jox nañ ko bopp te nit ñi gëm nañ ko te nit ñi wóolu nañ wóolu nañ ko boo ciy wax point boo teg rek ñëpp danañ ànd na dëgg la tey buñ nee nañ ziyaare Cheikh Omar Nazir ku ne xam na ne yelloo na ziyaare ndax liggéeyal na ko baayam ba baayam nangul ko ko liggéeyal na ko ay magam bañ nangu ko liggéeyal nañ ko ay rakkam bañ ko liggéeyal na réewam bañ nangu ko ba réewam oo ko jox ko médaille medaay bi ñuy bi ñuy jox ki liggéey ci réewam ba réewam gërëm la kon kooku xam nga mën nañ ko ziyaare ci mën nañ ko ziyaare ci diine waaye mën nañ ko ziyaare tam ci aada loolu yëpp yàlla jox na ko ko mooy koo xam ne bëggatoon dara ci lim yor waaw lim yor soxlawu ci dara waaw moo tax mu doon mu doon mu doon wax ne wa taxaw sax ne taalibe bàyyi laa sax war ngaa tiit waaw ndax taalibe bàyyi dafa am lu ko war waaw sas bu rëy mu ne taalibe bàyyi boo ko gisee sax da nga war a xam ne kii mooy taalibe bàyyi mu ne mu ne mu ne ñu waroo luq luqaaral <laughs> luq luqaaral la ñu doon wax mu ne sax dara yaa ngi luq luqaaral mooy yaa ngi mel nu nu nu rafetut hmm. waaw daan nañ sañse ba ñëw sax mu ne sax waaye sañse bi des na mbaxana bi des na wala dàll yi des na wala montor bi des moom dafa dégg àddina ba nga xam ne mu ne ñu sañse ci yi lañ koy xamee ci mbubu bi nga sol mbaxana bi mbaxana bi dàll yi ba ci montor bi ba ci lonet yi ngay sol waaw mu yooyu bu ci manqué de dana ne ah rafet na de waaye fii moo tax moom sa waay bu sañse woon bu génnee rek nga nga sañse waaw looloo loo looloo tax mu indi gàmm gi gàmm gi li ko indi mooy mu ne ndigal la buñ fuñ ko doon wax gàmm leen rek moom dafay toujours dafay listi xaar di laaj baayam ma def wala bu ma def ifal aw la tafal waaw loolu la defal wala bul def mu ne bu listixaaree rek mu ne mu gis daal bu génnee mu ne ah amaguma ndigal Cheikh Nazir wasifa bi ñuy def fii sax dafa jël ndigal ci baayam mu soog ko def waaw moo tax mu indi gàmmu mu ne gàmmu nag du ni ngeen ko déggee man congrès islamique lay oote ñëpp daje waxtaan déggoo ci point tasaaroo ci loolu liggéey bu déwénee ñu dajewaat kenn ku ne indi résultat waaw ku ne indi sa résultat man de def naa lii bi ñu fi jógee mu ne su ko defee ngeen di falante ku ngeen gis ne kenn ku ne. al al al rajulul munasib fil makaanil munasib moom lu muy def rek ci moom dafa bëgg araab ba nga xam ne lu muy def rek ci arab yi la koy la koy junj mm-hmm. mu ne araab ñu ne góor gu ne rek am na place boo yelloo mu ne te place yoo yelloo yooyu kenn ku ne rek boo nit ki boo ko laajee lum yorut mënu la koo jox mm-hmm. yorut ko ci xam-xam laaj ko du ko jox yorut ko ci ci xaalis nga laaj ko ko du la ko jox mm-hmm. mu ne kenn ku ne da nga ko war a jox pause bu man wala lam manee wala lam gën a bëgg sax nga seet ko nga dugal ko ci loolu mu ne bu ko defee loolu dana ko doxal loolu moo programme yooyu moo indi gàmmu neema gàmmu neema li ko indi mooy kër gi école bi jumaa ji mu ne kër gi ñun ñëpp ci kër gi la ñuy eewoo waaw mooy os bu njëkk bi ñetti os mu ne os bu njëkk mooy kër gi ñëpp fi la ñuy eh, eewoo fi la ñuy lekkee fi la ñuy naanee fi la ñuy toogee fi la ñuy waxtaanee fi la ñuy indi xel xelaat yu rafet yi pour liggéey buñ jógee nag ñu daal di dem jàngi ca école ba ngir lan ngir xam suñu bopp xam suñu borom ngir xam lu ñuy jàng ca jàkka ja bu ñu jógee ca njàng ma ba njàng ma mokk mu ne ñu dem ca jumaa ja nag daal di julli ji mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne almadarisu qabla al masajid mm-hmm. école yi ñoo jiitu jàkka yi jaamukaayu yàlla moom noonu lañ noonu la ko doon misaalee mu ne aussi yooyu bu ci manqué rek ciin bi boo ko tegee mën naa daanu waaw moo taxul mu ne mu ne kon wax dafa baax mu ne kilifa day wax boroom kër day wax mu ne mu ne mu ne ko sëriñ tam day wax ak njaboot gi mu ne kaleer ak itam dafa war a wax ci biir kër gi nga toore ba kaleer ba di këlëng këlëng xale yi dañuy cippelu ne eh, sama yaay mu ngay mu ne waaye nga xëy suba ba jant sa kaleera bi yëngutiwut mu ne kër ga ci tas la waaw moom lu la doon caaxaane comme li doon kii si xam ne kafam sax bu doon kaf loolu njàngale la te te luy am la waaw bu la kafee wax la dara sax lu lu neex loo xam ne lu baax la xamal ne tey sa bés dina baax waaw kon moom noonu la looloo indi gàmmu neema mm. waaw gàmmu neema bi ci loolu la soso ci ci fan juróom yi la jàpp ko ziyaare bi moo jiitu ziyaare bi ñeenti fan la ci weeru février bi mm-hmm. ki ñuy ziyaare mooy góor gu mag gi ma la wax shiblun ibnu shibl mm-hmm. gaynde doomi gaynde mm-hmm. dañuy wax gaynde gu ndaw gi ci gaynde gal la bàyyi ko si xam na di ku ko ziyaare yàlla nangul la ko ndax dafa liggéeyal bayam ba bayam nangul ko waaw kon ku bayam gërëm ba nangul la kooku ku buñ la ziyaare ziyaare boobu dina nangu ndax baay moo ne woon bi xabri yuutil abdumal kullu xayira ku ñëw ba ziyaara ma ci bis biñ mi nga tëralee ci kanami jumaa ji ngeen ne yoo suul ngeen ma ba dellu mu ne doomay bu ngeen delloo kenn ku ne dana fekk ma toog ci fauteuilam di ko xaar waaw kon kooku kooku moom la ñuy ziyaare incha allah te ziyaare bi eh, yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla defal ñu ci barke te Cheikh Baye Mouhamed Nazir bi nga xam ne moo toog place am nag la nga xam ne la doon def ñu ngi koy gërëm ko sant ndax fees na place bi te fees na ko si jikko ndax jikko mooy njëkk li ñuy nawee doomu aadama yonent ba muy bàkku ci jikko ci ci ci ci yar def ne man de sama borom moo ma yar te ba ma yaree rafetal na ma moom nag Cheikh Ahmad Nazir moo ko yar te rafetal na yaram teg na ko ci yoon te tegu na ci bëgg na taalibe yi bëgg na rakkam yi ak magam yi bëgg na juram yi bëgg na nijaam yi bëgg na képp koo xam ne moom la boqal pay bi bëgg bëgg na leen te fonk na leen bàyyi ku ku ku kuy kuy dajeek moom rek lépp lay xalaat teraanga buy jóg ci seen diggante bu fay ñëw ci moom lay jógee ñëw ci yow yow da ngay foog ne yaa ko war a teraangal waaye moom moom la moo lay jiitu mu teraangal la waaw te loolu te loolu ci loolu lañ ko xam ñu ngi koy ñaanal mission bi yàlla na ko mottali ci jàmm lépp lu bàyyam semboon mu mottali ko incha allah mooy dëkk yi ñuy ak réew ñuy wax yépp yàlla na ko mottali te incha allah man na ko mottali ndax ndax doy na ko ci jikko doy na ko ci xel def na ci xelaat def na ko ci jikko ju rafet doy na ko ci tam ci xol bu set mm. xolam dafa set doy na ko ci tam ti téye kurus waxuma la kurus bi muy téye de waaye xel xol xolam bi rek mën na koo jox lépp bëgg waaw ndax bàyyi bañ ko teralee ne lu ngeen xam ci kii imaamu Kaolack bi dafa jóg man Lamine Ba mu ne sëriñ bii tëdd de waxuma la aj yi muy ak ji mu aj ci àddina lu ëpp ñaar fukki aj waxuma la asaka bi muy génnee waxuma la laamiso bi muy def ak jaamu yàlla yi mu ne waaye ndeejooram bii mu njege naayoo rek mën na koo dugal ajana mu ne waaw mu ne pour joxe bi muy joxe mu ne mu ne ndeejooram bii mu njege naayoo rek mën na ko yóbbu àddina kii ajana te fekk jëf yi ñëwagul koku moy Cheikh Ibrahim koku moy ah. mamou Cheikh Baye koku moy waajuru Cheikh mohammed Nazir radiallahu taala kon bu ko ragal Nazir dan nañ ko wax bu len bu len ragal li du yeen mune mo ngi le estat ñun estat yi lañ rek waja nga ca kanam moy Cheikh Ibrahim waaw yalla yeb dem ci ko jërëjëf imam jërëjëf imam jotaay bi am na solo mbokk yi li moom li ñu naan li ñu avant première mom la danaka gamu gi dor a ah Youssoupha Diakhaté daañu ñëwaat ci yow daañu ñewat ci yow deeng nga xamne non la ko imam ande mu di góor goo xam ne léppam ak guddi mi bëccëg ma doo ko yaa yàlla subhanahu wa taala yàlla tam jox ko boppam rek nag kon defe naa ne yow la ñuy jox kàddu gi nga woote nga woote ci turu sëriñ bi nga woote ci turu islamique développement association bu Léman Nazir ci njiital Mbaye Dramé sunu mbokk ma nga woote ci turu dëkk bi waaye nga woote ci turu islam boo ñëw woo wootee ba noppi nag danañ ci ñambaas ndax itam du ñaari xew-xew benn xew-xew la ndax lii nga xam ne moom nga am di ko defal Cheikh Mohamed Nazir alxames bu jiit bu ñëw gannaaw gàmmu nee ma loolu itam ndigal nga ci am dina am solo nga wax ci ndigal loola naka la tëddee mu feeñ ne yow yow kóolare ngay doxal ci anam boobale bu ko defee boo wootee ba noppi nga jàmbaas ci loolu alxames la juróom-ñeenti fan sa kër fukki fan ci sa kër foofa nga xam ne at mu jot ñu def ko mu nekk jotaay bu taaru boo xam ne incha allah ñëpp daañu ci ñëw loolu laa yaakaar waaye da nga njëkk a woote ba noppi dugg ci loolu boo paree nag ñu jox sëriñ bi sëriñ bi nag bu boobaa dañ koy jox moom mu xool nu mu bëgg duggee rek parce que wax nañ sànq ne euh, programme bi dañ ko seetaan Sénégal waaye dañ ko seetaan furu Sénégal te ku ne xam na Baye cër bi mu am foofu sa Nigeria ku ne xam ne Cheikh Mohamed Nazir cër bi mu am ca Nigeria Cheikh Baye Mohamed Nazir mii ci dox kóllëre googale ku ne xam na la moom ca Nigeria kon defe naa ne du doon njombe bu ñu yegsee ci yow nga waxal ñu ci olof aslëf nga waxal ñu ci awsa aslëf bu ko defee ñu tëj jotaay bi incha allah ay Yusufa alhamdulilah docteur Babacar ginnaaw bu ñu santaatee yàlla julliwaat yeneen te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmm ji ñu waxtaane bala ñuy ñëw ci gàmmu gi mm-hmm. Maulana Cheikh Mouhamad Nasir mooy Seexu Kaamil mm-hmm. yàlla daf ko mataloon ci bépp anam mm-hmm. fi ma toog nii rek maa ngi fàttaliku ma toog ak moom fii bis mu wooma ci soxla su rëy ñu waxtaan ci ba pare man ne ko diw rek lañ koy wax suñ koy wax mu def ko léegi mu ne ma man day wu xaw na maa wuuteeg foofu ak yow gis-gis diw moomu ma foog ne yaa fi ñëw barki démb indi nangam nàngam nangam ne ci moom la jóge ma ne ko waaw ko joxoon indil la ko mu ne ma dama lay xamal benn xam-xam te xam-xam boobu bëgg naa ñëpp xam ko. Hmm. mu ne ma dafa bokk ci li ma lay dénk soo amee sa xarit te bëgguloo tàggook moom. Hmm. tee ko teg lu man mu attan waaw. mu ne ndax soo ko tee teg te tegaloo ko lu man bu la rusee. su la njëkkee seen doo ko gis. mu ne ma janaratu bii maa ko moom. Hmm. dama ko indi woon pour mu taal neex ma. jëlal génératu bi nga jaay ko ñu def soxla soosu waaye bul ko laaj kenn allahu akbar allahu akbar kooku mooy maulana Cheikh mohammed Nasir Ibrahim macha allahu foo ko fekk ci kóllëre rek matal na ko dëgg-dëgg wax ci sax dafa xat suñu waree wax ci Cheikh mohammed Nasir waaye kon ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mahi mi xalifa maulana Cheikh Lislam Hadj Ibrahim wàcc si ci doomam ju baax ci Seydi wa Mawlaay Cheikh Ibrahim mohammed Nasir ak mboolem njabootug maam alxaaji abdullah al ñoom ñépp ci fànn bu ñu mënte nekke ak njabootug mawlaana seydi aliyun siise njabootug seex sëriñ bay ñas fépp fuñ mën a nekk ñoo ànd ak seen doom ci suñ xalifa bii toog ci ni ko seydi imaam waxe léegi muy cheikh ibrahima ahmad nazir ci woote neex gàmmo nehma nazir mm. gàmmo nehma nazir nag ni ko imaam waxe sëriñ bi daf daan wax ne islamique congrès la mm. mu ne ndax fii lañuy daje di jàmbatal islam problème yi mu am mm. ñu juboo ci ci waxtaan ko tënk ko mm. doxal ko ba baneen jamono moo taxul mu doon wax ne sawaay gàmmoog neex ma gàmmo international la wuute na ak yeneen gàmmoo yi te oustaz Ibrahima Mahmoud Diop yàlla na yàlla yokk leeram kenn ku ne xam na ne ginnaaw Cheikh Mahamad Nasir la ñëw gàmmoo nee ma mm. bokk na ci lim ñu wax man musuma xam ne neex ma lii lay dajale. naka te ginnaaw gàmm ak Madina Baye neex maa ci topp. la lii la wax. te loolu kat xaaj misri mi ñu fi woon gàmmu gi moo ko njëkk a wax. Uh-huh. ndax bis Cheikh Mouhamad Nasir dafa nekk fii benn tàkku saam uh-huh. mu wàcc ci yu yundum bii rek daay rek ci seex yi. Uh-huh. bi keroog la ñuy taxawal Islamic Development Committee of Nehma Nasir bii. mu bokk ci lim ñuy wax ñu ne fii rek mooy foo xam ne boo fa taxawee baye bi comme bayab bàyyi jumaa ci comme yu bàyyi kër gi kër comme kërug bàyyi moo tax ñi xam te ràññee ñëpp dañu wax ne suñ mënul dem Medina bàyyi ci gàmmu ga ñoom duñ ci rey seen bopp dañuy xaar ma mm-hmm. kon ñi ngi koy yëgal his excellence président alxaaji Adama Baro mm-hmm. di ko yëgal président alxaaji Macky Sall mm-hmm. ndax ñaari nguur yi ñoo ko seq waaye di ko yëgal réew Mortani ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ki tooge jataayu taalibe bi fii ci eh, Gambia muy Seydi Imam Hadji Muntaxa Fay ñi ngi ko koy yëgal ñi ngi koy yëgal it imaam ratib alxaaji Thierno Alioune Maska waaye ñi ngi ko yëgal mboolem daaira yi nga xam ne ñi ngi aju ci pays bi fépp fuñ mën nekk moo xam jot nañ invitation wala jotutuñ invitation fuñ mën a nekk rek ñi ngi leen koy yëgal ñi ngi leen ci woo xam ne bis bi ñëpp ka bokk comme niñ ko tëralee incha allah buñ ci yàlla yóbboo Friday on foo 4 February mooy doon siyaare Maulana Cheikh Mouhamad Nazir mm. nga xam ne nekkul ne xaalis rek lañ ci laajte donte bokk na ca waaye liñ ci njëkk laajte mooy jàng alquran mm. yaa ko wax léegi ne bi ko bàyyi ñas ñaanee ci ñepp la feñ waaye nim feñ ci cheikh mohammed nazir yeme na fal taj ifsa kitab al karim karamati ila liqaika al asim yalla yalla nga def qur'an muy sama karama ba kérok may ak yow ci bis bu mag bi moo tax nga gis xalé bu am juróom-benn at ci madinatu bay di tari qur'an commencé ko bakr ban nasi si suba bala jant so lolou ligéyu bay ñess la ñaanuk bay ñess ko nungula mu jëlon domam ci bax ci sel ji fétalé ko ligéy bobu mu am ci may ko réeréeréy may kooku yàlla na daj mboolem taalubay bàyyi mboolem jullit yi ak fu ñu mën a nekk kon danañ xëy wàcc ay kaamil ñi nga xam ne seen njàng ci alquran yi yeex na mm. jox nañ leen ndigal ñu def ay salaatul fatiha mm. am na luñ comité buñ fi taxawal imaam Hadj Abdoulaye Dioum mooy ki ko jiite mm. képp koo xam ne jàng alquran foo mën a nekk lim ba nga jox ko ko su ko defee buñ julee jumaa ci ñeenti fan ci février ba pare bu seydi imaam Hadj Abdoulaye jiitee jumaa ji xalifa bi dana génn ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim ku fi teew ak muqaddam yi ñu tëj kaamil yooyu addi yàlla ko laa naa Cheikh Mouhamad Nazir ak mboolem jullit yi. dégg nga ak officiel cérémonie ci Friday boobu ginnaaw buñ jógee ci jumaa ji ñu dellu si fii ci tribune bi mboolem gan ñi fi rot bàyyi ko Mauritanie bàyyi ko Nigeria bàyyi ko Amérique bàyyi ko France bàyyi ko Italie bàyyi ko Angleterre fépp ak ci biir Gambia kilifa yi ñëw yëpp sëriñ bi dana leen tatagal. waxtaan ak ñoom wan leen bis bi li ko tax a jóg yëg leen teewaayam lu rëy la ci seen teewaayu kilifa lu rëy la ci moom ndax sëriñ bi moom kenn la soxla muy Baye kenn la soxla muy waajuram bi Maulana Cheikh Mouhamad Nasir jàpp na ne képp ko jublu ci loolu rek moom foo mën a nekk moom nga fa nekkal loolu mooy jubluwaay bi. su su ko defee nag ñi nga xam ne ñoo daan wër. ci biir dëkk bi rawatina jokka ak ñoom yi tiim boobu daan dem jóg nañ incha allahu ngir fettali kollëre bis bu ne dañuy wax ne gàmmoo neex ma lépp lu ci waaye def ndolleen la ndax loo rëy rëy ba ëddi fi dara foog ne toj nga fi fekk na am na ku la fi gën a toj te bëggul ko tudd turam na patt ba moo tax lu fi nit andi rek aw des la waaye it nag ku yàlla nar a dimbali rek moo fi def incha allahu kenn du fi def réccu ko place bi palaasu su nungukaayu ñaan la. Mm-hmm. place su muccukaay la. Mm-hmm. ba léegi lépp ku bëgg mucc boo fi duggee rek mucc nga. Mm-hmm. lépp lu nit sàkku boo fi duggee duggee fi xol bu set. ak yar bi mu laaj. dana teew ci sa ñaari loxo. loolu sikki sàkk amu ci ndax Maulana Cheikh Mouhamed Nasir Ibrahim mooy ki ko liggéey te ki ko bàyyee yàqu ko. waaw daf ko sàmmu te sàmmee ko fulla sàmmee ko ngor sàmmee ko doylu. macha allah yàlla na ko wax ci ji. ci barke Maulana Cheikh Mouhamad Nasir. su ko defee kàddug Cheikh Mouhamad Nasir laa leen di waxal. Cheikh Mouhamad Nasir daf daan wax ne. waa neex ma ñi yàlla wërsëgale ñuy ay dëkkandoom. nañ préparé bis bi. yaatal seeni xar kanam. leeral seeni xol. setal seeni kër dañ xam ne jëmm yi ñuy jàkkaar lool ñuy teew ci gàmmu gi jëmm yi ñu mënut gis ñoo ëpp foofu jëmm yi ñuy gis kon nit dana fi baaxe mhm. defaroo fi mhm. waaye ku muy tuurit mhm. safaan taxu ñoo jóg même nit mën na ko fee amee yàlla nañ ci yàlla musal ndax mu muccal nit ñee ko tax a jóg waaye kon dafa des kii ñëw ci yéeneem nu mu toll yéene bu mu toll rek loolu la fiy fekk incha allahu seydi imaam wax na sàng ci bi ñuy mitin na sëriñ bi musul jóg ci ñaan te su ma nee sëriñ bi xalifa bi laa ji jublu Cheikh Ibrahim Mouhamad Nazir ku ko xam ci lool nga ko xam te musul ñaan pour bopam limuy ñaan moy top mbay ñes mi limuy ñaan moy mbëkki julidi waye kol rek cheikh mohammed nasir ci gambi mom la taxaw wattu ko diko sammu sammu bo xamni ni insha allahu bant sax du ci damm ci kartanuk yalla su ko defé set nak nek samedi di juromi fan moy bisu gàmmu gi suñu xëyee siyaare bi dana continuer xalifa bi dana toog fii di deg délégation yi jóg dem welcome wajurum wi nga xamne mom la khalifa bi cheikh mohammedul mahi yabal muy ñëw ci turam muy cheikh mohammedul makki ibrahim ñass yàlla nako yag teewe yàlla yàgg ko may wir ak tal ndax kenn ku nek xamne yene ci ci am cheikh mohammed nasir mo daan defal bopam gamu gi mo daan defal bopam conférence bi mo daan waxtaan ak tuubeen yi mel nu moom képp faqat cheikh xaaji abdullah al xalifa ñëw diko fekk ci sëñ daam ñëw di ko fekk si sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim nga xam ne duñ ko fàtte mukk ñëw di ko fekk si ak mboolem rakkam yi Cheikh Mahamadul Hadi Cheikh Mahamadul Mamoun mhm. ñoom ñëpp yal na yàlla yokk seen leer yàlla fay leen ndax boroomi kóllëre lañ boroom ngor lañ mhm. bañ gisatut Cheikh Mahamad Nasir lépp luñ daan taxaw ak Cheikh Mahamad Nasir mhm. taxaw nañ ko ci seen wetu doom ji rafetal ko ba bisub tey bi dara ñaawut te yàlla bu dara ñaaw yal yàlla fay leen ñoom ñëpp biñ fi gisatu Cheikh Mahamad Nasir Cheikh Mahamadul Haadi fasanteeg doomam ji kóllëre ngir Baye Niass mm-hmm. ñëw ti taxawu bis bi mm-hmm. siyaare bi Cheikh Mahamadul Haadi mooy ki ko taxawal mm-hmm. ndax dafa ñëw kër kër ci bari lool mu ne yéen lan ngeen defal Cheikh Mahamad Nasir loolu lay laaj ndax lii ngeen fi def yëpp Cheikh Mahamad Nasir a ko daan def kon man sama xalaat mooy ajjuma ji nañ ko def siyaare Cheikh Mouhamad nasir looloo andi siyaare Cheikh Mouhamad nasir ñu sësale ko ci gàmmu Nihma Cheikh Mouhamadul Haadi moomu yàlla na yàlla fay ko Cheikh Mouhamad Mamoun mooy ki njëkk a yëkkati ñaari million CFA def ko ci gàmmu gi booba million yombut te it li nga xam li lay xamal ne yàlla rek taxoon mu di ko def Baye Niass rek taxoon mu di ko def Cheikh Mouhamad nasir rek taxoon mu di ko def booba fekkul Cheikh Mouhamad nasir ci kaw suuf waaw mu taxaw kóllëre ku rafet kooku wax ma ci làmmiñam ne ma bàyyi dafa baax ndax doom ju nekk dafa jël nit teg ci loxoom ne ko ci woy samag mhm. mu ne man bàyyi jël sama loxo teg ko ci loxol Cheikh Mahamad Nazir ne ma seex Cheikh Mahamad Nazir mooy samag moo tax lu ma defal Cheikh Mahamad Nazir sama bopp laa ko defal mhm. yàlla na ko yàlla fay gis nga nag niñ ñaanale doomi bàyyi ñaanale ko imam hasan nga xamné ne ñëw na fii ay yoon duñ ko faté neex ma dëkk kolera ñun duñ faté kenn duñ xeb kenn képp ku daan jëflante ak cheikh seema nazir bu suñu lamiñ faso bu tuddu ñu la it yaa ci suñu xel yaa ngi ci suñu xol imam hasan yàlla na yàlla fay ginnaaw cheikh mohamad nazir wàcc na fi faso nak wu nek dañ koy wax ndax dafa jot pour ñu wax ko ya wax légui ne bu wax jotee dañuy wax kon Cheikh mohammed Nasir lila warone lalay wonne dafa dafa safoon njabootu Baay Ñas mhm. daf ko safoo daf dañ daf ko dafa safoon njabootu Baay gi mhm. li la koy wanal mooy képp koo wax mbirum Cheikh Mouhamad Nasir rek day jàpp ne mbirum Baay Ñas nga koy wax daf ci sawar daf ciy yàkkamti wax na ma ci làmmiñam moom Mawlaana Cheikh Mouhamad Nasir ne ko imaam wax na ko ne man dama lay yàkkam day gis ba làmb xaalis jox la mhm. ndax dama ñëw ci sam tudd jox la ñaari junni ñu woo ma sama kër na ma kana ngi lay xaar ma ñëw kooku yëkkati ñaar fukki junni jox ma kon moo tax ma dellusiwaat yëkkatiwaat fukki junni jox la mooy gor mooy te loolu mën naa cee lim fukk ñoo xam ne ni jàkkaarloo nañu seex Cheikh Mouhamad Nasir na ko dama la yàkkamtee gis ba jox la xaalis lu ko waral seex Cheikh Mouhamad Nasir dafa soxlawul tus ci àdduna lépp lu mu am ci bàyñes la ko jëf ci bàyñes la koy delloo bàyyiwu fii taax bàyyiwu fii oto bàyyiwu fii société bàyyiwu fii factory waaye li ëpp solo la fi bàyyi mooy nit ñuy taxawali taax nit ñuy taxawali factory nit ñuy taxawali jumaa te lépp tey foo taxaw ci àdduna bi fekk fa mu Cheikh Mouhamad Nasir foo taxaw na ci àdduna laa la wax demal ci fu la neex Asie Europe Amérique fépp fu la neex boo fa taxawee da nga fa fekkum Cheikh Mouhamad Nasir koo xam ne Cheikh Mouhamad Nasir ko def kon bisam bi jot na moo xam Amérique nga ne moo xam France nga ne moo xam Italie nga ne moo xam Nigérian nga ne moo xam Sierra Leone nga ne foo mën a nekk ñu ngi la ciy woo di la ci welcome di la wax ne xalifa bi su mun a ay liggéey yoo xam ne nii te ñëw teg ci sa bët te nga xam ne kii li koy jox xam na fi mu koy dugal te nit dana am alal bëgg ko liggéey ci yàlla doo xam foo koy jaarale wala nga jox ko koo xam ni fam la wax ne fa la koy def du ko fa def kii toog sama ginnaaw muy alxalifa Cheikh Ibrahim Mouhamad Nasir wallahi alxasim ci barke Cheikh Mouhamad Nasir maa ngi leen te wan ne soxlawut dërëmu kenn te lépp lu ko waay jox dana ko liggéey ci yàlla yàlla nañ ko yàlla fayal kon nag gàmmu gàngoog ñeenti fan la mhm. juróomi fan la mhm. suñ demee nag ba alxames bis boobu li ko sabab ma laal ci tuuti ngeen jéggal ma ko euh, ndax sëriñ bi dama ànd ak moom ak kóor gi Baye Mbaye Thiam ak Mouhamed Malick Janga mhm. ñu war a jóge fii comme ni mu ko daan defee daf daan def toogee ba mu yàgg mu siyaari ci sincu dem faaraatu dem tànjee dëkk yi ay dëkkam la yoo xam ne daf leen a fonkoon bis ñu ànd dem ci kóor gi sëriñ Xaliyun Tunkara ñu def waxtaan ba pare ma ne ko ah xam naa ruq si boo fi mënoon a jaar sànniñu fi ñaan mu ne ma ku ko moom ma ne ko ah man lañ koy askanale mu ne ma léegi bu yàgg nga ma ko war a wax ñu daal di dem booba fenn safane ñu ubbi buntu kër bi mu dugg góor gi mbay caami ngi taxaw góor gi ma xam ne seexu moo ñu doon drive bu ñu fa jógee faaraatu la ñu war a dem mu ne ma musuma xam ne place bu toll nii am na fii na nga ko defar ndax waxtu wuñ gàmmootee ni ma ba ci suba sa fii laay ñëw noppaloo si loolu mooy cosaan bi ah. <laughs> ndax lu mu wax yàlla def ko <laughs> doomam ci baax ci cheikh aboubacar al musanna ginnaaw bi nga xamee ne gàmm nañ ne ma pare muy wër niti bàyyam yi di siyaare ji ba akshifa. fa Seydou Ousmane Diouf jottali ko kàddu gi mu ne ko déet loolu moom nekkul lu ñuy waaj dañuy daal di dem ci xalifa bi léegi rek mm-hmm. lu mu joxe ligal rek ñu def ko biñ ñëwee ci Seydi wa Mawlaaya mu wax ko ko man jógewul ci sama kàddu ba mu ko ko waxee mu ne ko musta ko xalaate noonu waaye lépp lu Cheikh Mouhamad Nasir wax dañ koy jëmmal njaboot ki yëpp ay dem nam ko waxee noonu lañ koy defee kontu bisub Yusufa Jaxate dafa fekk na xëy na fokk ñu tudd ko ci ndax barkeb Cheikh Mouhamad Nasir niñ koy tuddee ci neex ma rek noonu lañ koy tuddee ci foofu waaye Yusufa Jaxate moomu fa dara sëriñ baa ngi nii toog musuma koo wax ne ko programme bi nii lay tëddee musuma ko wax ne ko lii laa ci xalaat musuma ko ci wax dara lu may ne ma defal ma def bàyyil ma bàyyi sama yoon nekku ci kon bis boobu it ñi ngay wane ne daanaka suñ neexee ne mooy tëj gàmmu neex ma ñu ngi koy yëgal ñëpp mi ngi nekk alxemes fukki fan ci février xalifa beeki rakkam dañuy yendu si suñ demee ba juróomi waxtu mu génn jàkkaarloog nit ñi bu sikkaree sant ñu sant bu joxee salaatul faate ñu sant lu mu wax ñu gërëm kër ga fu kër gi siñcu alxaaji la ne sëriñ bi ne nañ koy defee ci mbedd bi mooy yoon bi nga xam ne moo jàkkaarloog aju paratays gi rek mm. yomb naa xam lool ndax boo taxawee ci yoonu mag bi sax yaa ngi seen tànt bi mm. def nañ ko ay ati at incha allah fas yéene nañ koo def mm. eh, ni neex ma gàmmu gi at mu jot sëriñ bi ci mbaaxam ànd ak njaboot gi dañ koy tudd ay ñii def conférence bi fa la ñuy wax ndax xam nga dañ ko daan def euh, ajuma muy jotaay bi nga xam ne dañ ko jagleel Cheikh Mohamed Nazir maanaam dafa mel ni dafa jokk ci ziyaare bi mooy ñoo xam ne ñii Cheikh Mohamed Nazir moo leen defar Nyom le nyu bëgg a jox ñu def conférence boo xam ne balaa gàmmu gi door lay doon euh, Cheikh Mohamed Nasir ki nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi kooku koy koy waxtaane mooy oustaz Tamsir sar. ay borom xam-xam rek a fi nekk euh, li nga xam ne moom mooy waxtaan jooja bàyyi wax ne yonent bu doxee ma dox bu taxee ma taxaw kooku kay def commentaire bi mooy inspecteur Mass bi tey borom njàng mu rëy la euh, Cheikh Ibrahima Niass ak li wax African Integration African Integration mooy Africa fu muy doonee benn Abdoulaye Wade ndeysaan bu mu ñëwee ba ñu ubbi jumaa wu Medina nga ci ci 2010 dafa demee bàyyi li ñuy réglé li ñuy jéem ñun ñëpp boobu ak léegi mënuñ ko moom def na ko ndax African intégration bi mooy ay réew yoo xam ne booloon nañu réew yi nga xam ne Afrique tamit dina làkk wa ñu tontu la incha allah rabbi kay def waxtaan booba moom mooy oustaz Ibrahima Ndiaye ngeen xam jàmbari yàlla jooju gannaaw loolu nag li nga xam ne moom mooy dund yonent bi sallallahu alayhi wa xam ak yu ni mel ci jamono bi bëgg jàmmam ki koy waxtaanee mooy Kaari Omar Seck sunu Kaari Omar Seck mi ngeen xam ñooñu ñooy def waxtaan wi balaa gàmmu gi ñëw gàmmu gi nag Cheikh Mouhamadou Macky moo koy def moom moo ko far moo ko moom moo ko moom. kon defe naa ne foofu la ñuy toll bu ñu yeggee ci loolu nag daal di jox sëriñ bi sëriñ bi daal sa taalibe bi yaa ngi say soppe yaa ngi ñi ne fii ak ñi ne fu dul fii loolu na moo wax ak ñoom rek bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah. <coughs> <coughs> <coughs>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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi soppe yi ci yàlla soppe yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppe yi ci mawlaana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu saaxibul fayda <coughs> waa Gambia yëpp waa senegal addina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën ci nuyoo muy nuyu lislaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyoo bi Cheikh Ibrahim Niass firil ñu ko ne mooy nuyoob jàmm di nuyoob eh, ci yërmaane di nuyoob barke ne ñett yi bépp jullit buy nuyu sa moroom yaa ngi koy ñaanal ci ñett yi muy jàmm ak yërmaane barke ñu ngi ñaan yàlla ci ñett yooyu yàlla nañu ko yàlla boole defal ñëpp def ko ci àddina bi yëpp eh, ñu ngi جيتل شي يو بوبو سيدي ومولاي الخليفة الشيخ محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم نيس بن كون يوم موي نوي نان مبولم جابوت الشيخ إبراهيم نيس دي تي تك إمام الحضرة الشيخ أحمد تيجان علي سيسي ñu ngi leen ñu jiital ci nuyoo boobu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen suñ kanam di sant yàlla bu baax comme ni ko suñ mbokk yu baax yi waxee suñ kilifa yu baax yi waxee ñu ngi fii tey ci Nihma Nadir neama Cheikh Mouhamed Nazir fii ci Gambia ah, mu nekk dëkk boo xam ne àddina bi yëpp xam nañ ko duma ci sore ndax ñi ma jiitu ci kàddu la wax rek ah, ci matal na wax ji ndax ñoom seen kàddu ah, bu ñu waxee rek mooy kàddu guwér ndax ñoom li liñ fi wax yépp ñu fekkee la euh, ñi ngi nii toog ci ci néeg ci néeg Cheikh Mouhamed Nazir fii ci naama euh, alhamdulilah oote bi mi ngi noonu comme ni ngeen ko déggee mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee ko amiin amiin ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ ci séentu yaa ci lu baax yàlla defal ñu ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla buñ ci gis dara lu ñu ragal amiin te incha allah duñ ko ci gis ndax ki ki nga xam ne ne moom moo sos lii eh, mi ngi ko sos ci dëgg ñu ko sos ci yàlla te lépp luñ sos ci yàlla moom incha allahu ci kanam rek dafay sax ndax yàlla moom mooy ki sax moom moo fi nekk ba ilaa yawmi diini moo tax lii dara luñ ciy ragal alhamdulillah ah, di ñaan yàlla ñi koy taxawee ñëpp ñi ngi leen di ñaanal yàlla amin ya rabbal alamin ah, wax dëgg yàlla ñëpp bàyyi nañ seen seen itte Euh, soldaar yi nga xam ne tey ñoom ngeen gis ñu toog nii ñoo fi nekkoon démb ak Cheikh Mouhamed Nazir jël seen lépp jox ko ko te ba léegi ñu ngi ci loolu ah ci suba ba léegi ñu ngi fii ñi ngi neex ma toog bàyyi seen kër yi bàyyi seen lépp kon ñooñu ñi ngi nekk fii ma ñi ngi nekkal yàlla waaye yàlla na yàlla yàlla na leen yàlla nekkal. amiin amiin amiin Niass yàlla na leen yàlla nekkal. yàlla na leen yàlla nekkal. amiin Niass. yàlla wuutu leen ci seen lépp. amiin Niass. te incha allahu loolu moom lu am la ba pare. Mm. ndax Cheikh Mouhamed Nazir garanti na ko. Mm. ndax moom waxam laa yantiqu anil hawa. ah yéen xam ngeen ko. dëgg la ndax léppam bàyyi la. Mm. soxlawul dara lu bàyyi bëgg rek la bëgg hmm. lu mu xam bàyyi la ko jox euh, Cheikh Youssoufa Diakhaté wax na ko fi léegi ne euh, Cheikh Alxaaji Misir bi mu ñëwee bi mu gisee ne ma lam lam fa wax noonu rek la mën a demee hmm. ndax koo xam ne ne bàyyi moom mooy sa royuwaay bàyyi moom mooy moom mooy sa lépp moom ngay xool hmm. ni bàyyi ne woon moom doxut ci gannaaw kenn topput kenn lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. ida saara na surtout waraahu mm. cheikh mouhamad nazir noonu noon la meloon moom tamit mm-hmm. bàyyi la jiital bàyyi lay gis su bàyyi doxee mu dox su bàyyi taxawee mu tax lu bàyyi su bàyyi waxee lu bàyyi wax mu def su bàyyi lu bàyyi gërëm loolu loolu loolu la gërëm mm. ah, loolu moom moo ko may lii tey Ah, ci sëtqu boobu mu nekkoon ci moom mm-hmm. muy dëggu googu nekkoon ci moom loolu moom moom moom moom moom moo ko may lii tey kon yàlla ñu yàlla may dëggu amiin yaa rabbal aalamiin ñu nekk ñu dëggu ndax mm. dëggu moom mooy lépp ñii ñu àndoon nekkoon ak Cheikh Nazir ah ñu dëggu lañ ndax Cheikh Mouhamed Nazir mosul leen a jey mosul leen a kii ci ban maanaam ci lu ko neex rek wante daf daan ànd ak ñoom ci dëgg daf daan wax ak ñoom dëgg daf leen daan jaarale ci dëgg jaaraleen ci siraatul mustaqim ba tey koo ci gis rek tey su waxee wala mu jëf rek da ngay gis jàngale Cheikh Mouhamed Nazir ci moom kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla. amiin yaa rabbal alamin seen taxawaay yàlla yàggal ko. amiin yàlla dëgëral ko. amiin ba mission bi nga xam ne Cheikh Mouhamed Nazir bàyyi nañu ko. incha allahu ñu yóbbu ko. incha allah ba mu àgg fa mu war a àgg. yàlla am na loolu yàlla ñu ko yàlla defal. ñun ñëpp nañ ci jàpp. waaw ñun ñëpp nañ ci jàpp mbir mi du mbiri kenn. mbir yàlla la. mbir yàlla la bul buñ ci xool ma sàmb buñ ci xool ma demba ndax ki ki fàkk fii tey bañ muñ fee ñëw ñun tey toog ah waxul ne man la ak sama njaboot nang déedéet wante daf kaa def mu nekk ñeexal jàmm yàlla yépp nee ma fii ci rawukaay la mm. ku fi ñëw rekk mucc nga neppe yi Mawlana Cheikh Ibrahim دعني تمدينا باي ومن دخله كان آمنا نعمة من نون له ومن دخله كان آمنا لولو لا شك فيه واو ومن دخله كان آمنا الحمد لله واو دسنا نك كي كيفي دغو اك اين بيغا اندك شيخ يوسف واخنا كو سو في نيوي اين بو باخ لو سو نيوي لو بون لا يالا ديلوكو سا كو kon yàlla ñu yàlla musal amiin yàlla musal ñu ba ñuñ bokk ci ñi nga xam ne ne dañuy ñëw di yàq dañuy ñëw di di ñëw moom mooy fexe lépp mu jëm kanam ndax mbir mi suñ ci taxawee dana dem suñ ci taxawu timin dana dem Mm. kon yàlla ñu yàlla boole. amiin ci ñi nga xam ne ne ñoom ñooy yóbbu lépp mu dem ci kanam. amiin ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. Mm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. Mm, fan wu gudd. amiin ak wér. amiin ànd ak wér. amiin ànd ak alal ju bëri. amiin na leen ko yàlla jox. maa ngi def. التوسل بوم امين تي بركه بروم نيك بي امين موي شيخ محمد نزير امين يالا لين يالا ديفال كين كو نيك تي يين لولو امين دا خامنا ني بولين امي waxuma neema rek wante pay bi du incha allah du manqué dara waaw ndax kenn ku nekk xam nañ eene bi nekk sa suñ doon lim par tour par tour ku nekk xam nañ eene bi nekk sa xol wante ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci barke Cheikh Mouhamed Nazir amiin ci barke Cheikh Ibrahima kenn ku nekk ci yéen amiin yàlla ko yàlla defal lim bëgg kenn ku nekk ci yéen li mu bëgg yàlla ko yàlla defal kenn ku nekk ci yéen li mu bëgg yàlla ko yàlla defal amiin yàlla jox leen ay milliards amiin ay milliards amiin milliards yu barke insha allahu yàlla yàlla am na loolu mm. moom lañ koy ñaan yàlla na leen ko yàlla defal kontaan nañ bu baax mm. ah, seen kàddu jotal na. alhamdulilah lépp rafet na. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. di wax ne yaa incha allahu gàmm gi mi ngi ñëw. ah ñun ñëpp nañ ko fugg nañ ubbi suñ xol yi nañ ubbi suñ suñ lépp ubbi suñ kër yi ubbi suñ lépp xam na ne boo ootee da nga gis ku nekk façon nit bu nekk danga ko gis mm, tey Medina bàyyi ku nekk nga fay wàcc da fay gis ay nit ñoo xam sax daf lay leer ne ñii nekkuñu ay nit waaw neema nag timin kazaalika noonu mm-hmm. waaw oote bi yàlla moom moom mel noonu kon nag nañ yaatal suñ den mm. nañ muñ mm. nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ suñ nañ jiifal suñ xol yi mm. buñ mer buñ buñ gis dara buñ gis suñ bopp yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu ba buñ gis suñ bopp ndax ku nekk ci yoonu yàlla di liggéey da nga gis lu nekk da nga dégg lu nekk waa nag feeg déggoo ci lu la naqadi rek xamal ne yàlla gërëmut ndax Cheikh Ibrahima Niass amul lum déggut Cheikh Mohamed Nazir Niass amul lum déggut déggut mm. euh, njabooti Cheikh Ibrahima Niass amul luñ déggut mm. kon nag ñun taalibe yi luñ dégg rek nañu muñ mm. ku ñëw saaga la sax bul ko faale nañ dem rek yow continuer ci liggéey bi ndax dafa am ñoo xam ne dañoo yàqule ba pare ñu ñëw nag bugg xam xàndandoo bu leen gunge loolu nag buñ ko nangu buñ nangu loolu moo tax da nga gis façon bu nekk da gis ku ñëw fekk la nga sonn ba bëgg rek mu ñëw mu wax la benn baat rek yëkkati ko rek pour mer la waaye yow bu boobaa yow seetal rek ka nga daan seet xoolal rek ka nga daan xool loolu daal maa ngi koy dénk sama bopp di koy dénk ñëpp di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñëpp ñëw ci jàmm ñu def ko ci jàmm pare ci jàmm ànd ak ci ngërmaaneel yàlla ñëpp delluwaat ci jàmm yàlla faj mboolem haajo yi eh, ci barke Cheikh Mouhamed Nazir ci barke Cheikh Ibrahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw alhamdulillah en eh, uwanmu eh, a hausawa Eh, musulmai da almajiran shehu ibrahim eh, muna muku gaisuwa ta musamman gaisuwan musulunci wanda ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu <clears throat> muna muku ziyara muna nan yau a wannan garin gambia wannan garin da shehu muhammadu nazir dan shehu ibrahim yas wanda ya asasa wannan garin ya sa mata suna nema kunkun ga munan a dakinsa yau muna tare da almajiransa da sahabansa wanda suka zauna da shi a nan lokacin da ya zo ya kafa wannan garin ya assasa wannan garin da iznin walidinsa da shehunsa shehu ibrahim wanda ya ba shi izini ya ce mishi ka je ko ina a duniya nan ka bude makarantu ka gina masallacin da ya zo nan garin gashi nan yanzu muna wannan garin garin in ka zo za ka ga kamar madina ne kamar madinan shehu ibrahim ne kawai abun da ka gani a madina shine za ka ga a wannan madina ni'ama to muna ga munan muna shiryan maulidi wanda shehu nazir ya kafa shi a wannan garin ana yi shi ko wani shekara wannan shekara insha Allah musa ranar da za a yi maulidin shine ranar hudu ga da watan eh, fabrairu shine ziyarar da za a yi mashehu nazir a nan ranar asabar shine ranar biyar shine ranar maulidi du'ayen shehu za su zo su halarta wannan taron ah, babanmu da shehunmu shehu muhammadu maki shine zai tsaya da wannan daren shine zai zauna da mu kamar yadda shehu ibrahim yake da kamar yadda shehu nazir yake da da shehu ibrahim yake da shi zai zo ya zauna tare da mu har washe garin to muna kiran mutane su zo duk inda suke duk inda bahaushe yake muna kiransa duk wanda yake ce duk wanda yake fada ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah muna kiransa saboda shehu nazir ya kafa wannan garin bai eh, kafa wannan garin ba saboda wani abu ba ya kafa shi saboda Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda <clears throat> musulmai su zo su yi amfani in ka zo nan makaranta za ka gani da masallaci da gida inda almajiran suke zauna to muna kira 'yan uwanmu duka muna gode muku muna sa <clears throat> Allah ya kawo duk wanda za su zo su zo lafiya su yi ziyara su koma lafiya Allah ya karba mana addu'a mu ya karba mana duk abin da muka roƙe Allah nan Allah ya ba mu shi albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin maulan mu shehu Ibrahim ya wa ta'ala nu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin kuma muna <clears throat> da sunan halifa halifa shehu Ibrahim shi ne wanda kuka sani shi ne halifa yanzu sheikh muhammadul mahi dan shehu ibrahim yas shi kuma da izninsa muka samu oh, insha Allah muka zauna da shi ya ba mu izinin muka wannan taron za mu ce insha Allah shi kuma muna gode mishi muna roke Allah Allah ya ja kwanansa Allah ya ba shi lafiya da imam imamul hadra shine imam Sheikh Ahmad Tijan ibn Sayyid Ali Sise insha Allah shi kuma muna roken musu Allah dukkan da dukkan ayin shehu dukkansu da dukkan almajirin shehu dukkansu muna gode muku muna roƙon muku Allah Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kore mana duk abun da muke jin tsoron Allah ya sa kada mu ganshi da idanunmu albarkaci Shehu Nazir albarkaci Shehu Ibrahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما ولغ والخاتم لما سبع ناصر الاقبل بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا آله حق قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبع ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك